àddina asalaamaaleykum Gambia nuyu naa képp kuy seetaan Sahel Network TV ziyaare leen sargal leen di leen bëggee Aïcha teewaat ci biir kër gi bëgg a waxtaan ak yéen si wàllum business profile maanaam looy yëngu képp koo xamante ne mu ngi yëngu si dara rek moom moom dinaa la dalal fii ci biir kër gi bëgg a waxtaan ak yow di nuyu kilifa diine kilifa aada yi kontaan naa si ñiy seetaan Sahel Network TV comme ni ma leen ko faral di waxee rek. gan bu tedd tey laa amate si biir kër gi damay bàyyi moom mu nuyoo rek wax leen moom mooy kan ñu xuus si waxtaan bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Aïssa maa ngi lay dellu nuyu. Mhm. Euh, kontaan naa trop mhm. euh, man maa ngi tudd Alfu M Sarr. Mhm. maa ngi juddoo dëkk bi ñu ooyee Ndofane 16 euh, kilomètres ay laa koy waaw. foofu laa juddoo. Um, Lower Niomi North Bank Region. so man suma yëngatu li ma si li ma nekk mooy yëfi agriculture. Ah, agriculture waaw si agriculture laa nekk yëngatu ah, ñu ngi yëngatu si yëfi kasu ak honey mm-hmm. bi. Mm-hmm. at the same time dañ lay offer delivery service as well. so suñu business name is Agrotech. Mm-hmm. Ah. ba léegi di def business idea um, when I was 14 years old. Um, loolu it was around then still I started develop this business idea mm-hmm. waaw balaa loolu tamit yaa gis ne ya 2000 to ya 2004 suma papa daf ma daan coach di ma jàngal lu bëri si yëfin kasu waaw waaw waaw waaw so ma lu bëri mm-hmm. nii mm-hmm. so loolu tax na bi ma build start di build interest so ya 2004 si lañ start di harvest so bi start di harvest suñ kasu yi den ma gis ne lii nii su ma si suma ma si téye su ma ñaari loxo ëllëg mun na si waaw well my father suma papa dafa nekkoon ki nga xam ne he was just trying to push me up mm-hmm. because I was the only son in the family when he want to see me mm-hmm. um, in the next level in the mm-hmm. future so that's how I started um, business bi nag uh, dama dem ba year 2014 uh, year 2004 to dama dem si tool yi di jiw kasu Chief BC Birtual until um, that particular 2014. so 2015 um, startoon naa di liggéey ak company ñoom dañ daan jaay yëfi aloe vera company si is an American company so ma nekkee foofu noonu for a period of one year two years mm-hmm. in 2017 so I still um, ndekete ñun ah, it was yaa naa di dégga ne mm-hmm. the richest people are farmers mm-hmm. but what makes them to be rich So loolu nekkoon naa si li nga ne dama ko daan gëstu lu bari dam daan consult yu bari I was also a tekki. yes so gis naa. Mhm. so that company bi ma read the story of that company the founder of that company. Mhm. Um, Rex Morgan from Arizona. Um, he started this aloe vera di ko plant di add value or di make a lot of research and he was able to come up with different products nga xam ne at the end of the year he was able to make a lot of millions of dollars out of it. and he's having companies uh, his companies having branches all over the world. Mm-hmm. so bi nga xam ne am nañ di change of government so da nga gis tey by time everybody was free. Mm-hmm. ndaw yu bari ku nekk mu ngi bëgg yëngatu si business. Ah, waa démocratie bi <laughs> dugal si na ku nekk mu ngi bëgg am sa own business. because at you can you can see that um, in 2017 that the youth unemployment rate was too high, mm -hmm. and the government definitely won't employ everybody. Mm-hmm. So most of the youths like me and others, ñun si lañ commencé um, di campaign of why not we come out we tekki fii so ku nekk mu ngi bon would start his business waaye in July di um, youth empowerment project dañu sponsor benn programme bi ndoy elite summer camp waaw si loolu laa bëggoon a ñëw sax parce gis naa ne tamit. Uh, waa yëpp ñoom tamit jàppale nañ la si wàllum sa liggéey bi nga xam ne sa business bi nga xam ne moom nga nekk def ak waa uh, entrepreneurship, leadership, uh, and uh, yeah. yes. and the, the, yeah, Yeah. So that elite summer camp was organized by Global Youth Innovation Network, Gambia chapter, yes. international youth organization. We have the main office in uh, in America, mm -hmm. but the Gambia chapter being um, they were working with the youth empowerment project. Mm -hmm. So 2017, they were organizing this um, a summer camp mm-hmm. to train uh, young people on entrepreneurship, mm-hmm. leadership, and information technology. While the main purpose was to encourage more rural youths pour ñu a because da most of them we are not knowing nekkul woon what was going on around. so what can you tell us about comme experience yes after this the the summer camp I was able to learn much about entrepreneurship business management. Mm-hmm. at the same time I was able to hear from other young people. Mm-hmm. So it was a very good summer coming up. It was not only the education that I got from there, mm -hmm. but the connection. But they also get to know me. What is the role of GCCI, GAIPA, NACU, uh, the NEDI, National Enterprise Development Initiative, and what is their purpose, how they are supporting young, other young people. Mm -hmm. So 2018, um, NEMA P2RS is an agricultural project. Mm -hmm. They also organized one business plant uh, development training. Mm-hmm. so bokk naa si ndaw yi nga xam ne we are selected to be part of that program. so after that program so ñu gis ne waaw the only thing we can do now is that we go and start our business and register as well. maanaam tekki fi bi gis nañ ne tamit da nga am eh, ten hectares. Mm. nga xam te yaa ngi fay kasu bi pare bii kipit bi tamit yaa koy def foofu noonu. lan nga ñu mën a wax si wàllum loolu parce que yow moom moom dégg naan dund moom métti na de. yeah because xam nga laan bi naka tudd agriculture bi nii boo xoolee ñun ñu dañ juddoo fekk suñu maam ñu ngi béy. waaw suñu ñu ngi béy. Mm-hmm. but what is not making them waaw dañ ko doon waaw. While Nyub, they were having these lands, mm -hmm. but um, the proper use of this land was not that much. Uh -huh. Because you am don't am 10 hectares at the same time you are still poor. Because ñom liñ gom mooy bay gerte dugub. Mm-hmm. Comme daal bay looy dundee daal mm-hmm. te agriculture bi léegi um ñun ci ñu ñun suñu gis gis léegi dafa passé lo non. Mm-hmm. It's not about growing what you eat and really animals no, no. agriculture dafa passé lo noonu so léegi wat ñun suñu mindset bi mooy naka lañ jël suñu local products yi ni add value da nga gis loolu dafay mën a tax ñu gën a am moo customers dafa dafa gën a yokk suñu koppar bi tamit ak di seen loolu mën nañu dimbale ñu tam suñu économie pour ñu mën a créer ay local wealth mm-hmm. so ten hectares boo noonu is even more than that um, boo ten hectares boo noonu is just for the cashew and honey boobu maa ngi plan tam pour jiw foofu moo moringas casus yaa ngi foofu noonu I still need more to plant mm-hmm. because man dam am an environmentalist am mm-hmm. also part of the green of Gambia ah, because ñu nga xam ne ñun ñëpp ay ndaw yi nga xam ne ñun dañu gis ne Gambia dafa war a greenaat because da nga gis ne àll bi bëri gor nañ ko amatuñ garab daal soo ñàkk garab waaw waaw ah. soo ñàkk a ñàkk am garab yi nii loo tax na suñ taw bi sax dafa wàcceeku because boo xoolee amoon na time ay end of April wala di starting of May si lañ la commencé di am taw. waaye léegi da nga gis léegi seen um, rainfall dafa dem ba di July si lañ dem naam because loolu yëpp da nga gis ne ña amuñ lañ garab yu day waaye xam nga fa uh, nekkul nekkul ñun su nekkee ne yaa ngi plant kas garab yi am na garab yi nga xam ne um, di um, naka xam ko drought resistant like exemple like kasu mm-hmm. kasu moom laajte woon ndox bu bëri. te gaa ngi si biir kasu boobu noonu you can come up with different products mun um, nga si am apple bi apple bi woonu mun nga ko defar with cake and others di ronals boo xam ne mun nga ko lakka nga am sa canals bi ma di roset katu ba pare nga extra gaz boobu noonu lot of products yi nga xam ne mun ko génne foofu noonu ba yaa ngi si kasu noonu boo ko dee jiw sa tool bi loolu tam mun naa save di forest because daa nga gis ne boo gisee kasu bu demee market mun nga gor nga def boobu noonu mata wala so yaa ngi si forest bi di forest cover is still there so lu ma daal man daal maa gën naa sopp ak kasu yote bi bii tamit nekku ne yomba bi ak euh, nakata lem bi nga dee am foofu noonu wala bii wax bi nga dee am foofu noonu mm-hmm. um, di bi bii keeping daf dee gën a increase the productivity of the uh, of the crops wala yaa ngi si yeneen mais bi ñun fii nii uh, miiniñ ko wante daa ngi si tubaab yi ñoom sax mm-hmm. suñ defee seen kaadi mm-hmm. daa ngi def fa benn bii hive pour attract the bees ba man maa ngi def uh, benn experiment Ah, maa ngi am ñaari femmes yi nga xam ne beneen bi mu ngi am ten hypes of cas ah, bi mm-hmm. bi amut waaye bi nga xam ne amut boobu moo ëpp a bële bële is about 4.5 bi nga xam ne am na bii kii bi maa ngi def bii kii mi foofu noonu mm-hmm. is about 3 hectares so da nga gis bële lim dee mun a jur bële di ko dee mun a jur. Mm-hmm. wala so based on research bi nga xam ne. Pisco defoon nañ ko gana bi kipin boobu moo ko waral. wa moo ko waral waaw. Ya. Ah, ok loolu mom jambar léegi mm. yow where is your market fan nga xamantene ah, fofu nga lay jaayee wala da ngeen dee export li nga xamantene moy sen li wa because man xam nga comme man si li ma specialize dafa nekk li nga xam products nga xam well demanded in the market. Mhm. already we have ready ready customers. Mhm. like kasubini Indians are here. Mhm. at Saro ñom lañ lay jënd exporters. processus euh, compagnie si nga xam ne ñu ngi fii ren like GHE, Jamnian Families mhm. ñoom lañ de process cashews and others mhm. so those are ready customers ñoom ñu dañ ñëw jënd yóbbu seen factory process ñeneen customer dañ ñëw jënd export ñeneen ñi tamit comme ñeneen dañ dee mën a jënd fii tamit yóbbu ko mhm. Sénégal wala other parts of the world pour export ko tamit loolu yëpp dafa mën a am so we have customers on that. bëri waaw. ñu si biir réew mi ndax employé ngeen no right now I'm working with six people. Ah, te maa ngi maa ngi work with three people in the Combos here. Mhm. Uh, maa ngi work with three people in the rural areas down there. Mhm. so ñi nga xam ne ñu ngi nekk fii Kombo fii ñoom ñoo la dee jaayal suma leen bi ak kasu yi. Mhm. two boys and keneen ki moo dee def delivery service yi. Ah, so in the rural areas fii three ñi ma am foofu ñoo ñoo dee def di um, farming activities yi ma dee def foofu so but we also have léegi dugg nañ ci système yi we learn a lot from the past. the past after bi ñu experimental learning. ak bi ñu research suñu business bi. so this in this past two years we have more get nañ more exposed to xam nga more training. from GCCI GAIPA eh, startup incubator Gambia. MEDI so most of these um, enterprise support institutions. Mm-hmm. ñoom it one one way or the other ma day jàppale. su ñu amee programme ne ma dee invite business to business networking events yi nii dama dem foofu ma jàngal lu bari foofu noonu ba training yi tamit dem trade fair yëpp last year yëpp yóbbu nañ ma Dakar ma dem learn from their entrepreneurs there so daanaka loolu dafa ma gën a expose moom so bi moo gën tu get to bi nga xam ne we already share it to the Ministry of Youth and Sport mm-hmm. because um, if you could follow the social medias um, around eh, February 2020, the Minister of Youth and Sport was at my farm mm-hmm. and he was very impressed about what I'm doing. So the ministry and all the technicians yi nga xam ne ñoo liggéey foofu noonu. li ma advice woon mooy why not I come with my plan. ma mm-hmm. def ko ñoom ne for possible support which I already did. Mm-hmm. te sa biir wax sa mention nga fa GCCI. te saytu neen sa mbir ne comme yow ambassadeur nga foofu si GCCI léegi nan nga ñoo mën a wax si wàllum sa liggéey. waaw suñu liggéey ak GCCI mooy jàppale GCCI um, in terms of supporting those who are starting businesses. Mm-hmm. Um, it was nakune um, it was an application. Mm -hmm. gis ne how long have you in the entrepreneurship mm-hmm. ba pare yow naka la bëri then they xam am na ñi nga xam ne they are doing what uh, they are not only doing their business alone. But they're trying to encourage more young people to do to start their own business. Mm -hmm. And we are also trying to help more people to get organized and buffer mm-hmm. in terms of business administration. So this is uh, um, last year. Um, last year, like I established what they call um, a startup chapter mm-hmm. because this is like in down you burying out of business. Wow. Everybody want to be a manager mm -hmm. or a founder or a CEO. So, well, the mindset is I think is uh-huh. trying to change now. because amoon na time koo wax koo wax rek booy ah, damaa dem baak bi su ne damay tukki bii nii America bii nii European bii nii yow so daa ngi si léegi the mindset of many young people dafa change ku nekk mu ngi bëgg a tekki fii ku nekk mu ngi bëgg a start a business so gis nga gis nañ léegi um, since the change of government in 2017 many young people want to start on their own business mm-hmm. wante ba léegi tamit we have problems of like packaging mm-hmm. access to uh-huh. ba pare so many things di nga xam ne ndaw yi ñu ngi koy di um, am problem boo noonu access to market so léegi léegi ay come up with the idea of establishing a startup charter so that startup charter boo noonu mooy naka lañu ñu boole ndaw yi nga xam ne they are just starting business within the three years irrespective of whether you are a youth or not a youth mm-hmm. so ñu la gaa yi bugg jël indi leen on one platform mm-hmm. pour ñu ñëpp di jàppalante daal because ñu ñëpp Gambia nii la so ñu ne su nekkee benn nii dangay gis ñoo tamit we can try to Jesus si saani yes so li ñu bëgg a def mooy eh, li ñu def mooy members yi ñu have about plus hundred and something uh, members right now mm-hmm. I think more people are also interested about that chapter mm-hmm. so what we do is ñoom ndaw ñun we interact with them and see their problems mm-hmm. and we push it to our advocates because ñun am ourselves I mean we are five in numbers but we have another five people in Ghana, they are the advocates. Okay. So we push our uh, ideas to those people, and those people also poured it this is mm -hmm. so you see my my role the, as ambassador was how we can all come together on the one platform and we say our problem to GCCI mm -hmm. and GCCI will also work partners um, the government international mm-hmm. bodies in the pour mun a jàppale in business. léegi yow sa wàllum business boobu lan assist uh, agricultural sector bi fii si biir Gambia. Yeah, right now, um, coming like right now, I already have the experience in it. Understand? Mm -hmm. I know the economic value of our local markets. Mm-hmm. Uh, some products in Ghana, Mulendi and Fini. Mm-hmm. So, man, I'm always open to government, private sector, individual, or youth. Mm-hmm. Keeping Ghana, you want to get uh, Bonga I just, I'm just free to share. Mm -hmm. But at the same time, I am also making more research in Ghana what we can do to boost our agriculture sector. Because if you look at um, the Ministry of Agriculture in Nekafini, we have a lot of high, um, PhD holders. Yeah. If you look at the government, the highest number of PhD holders are, are the Ministry of um, um Agriculture. Mm -hmm. So you dañu war a ñëw wàcce si mm-hmm. ak ñun ñëpp ñu toog si farm bi di already have the technical know how and we also have the experience. Wow. so when we all come together ñun mën nañ share waa dëkk bi mooy dem waaye da gis ne su nekkee at the expert is just sitting at the ministry mm-hmm. the farmer is just isolated at his farm mm-hmm. so da nga gis the um, transfer of technology mm-hmm. waaw transfer of technology bi dafay lu wala su nekkee ne di the expert is working directly with us understand loolu dafay ne ñun su nekkee ñu ko defee nii ñoom mu nañ wax ne non war leen ko defee def leen ko nii so I think boo gisoon um, jawara nguuram am fekkuma ko on lu bari wante suma maam he was in it understand nga ñoom yëpp time moom jawara li mu defoon mooy dafa yóbboon nii hmm. comme like mixed farming centers yi nii every mixed farming center mu bàyyi foofu noonu an expert uh-huh. so that expert will working with the youths will working with the women directly mm-hmm. so that within that period of time balaa kooku di move foofu noonu at least fekka jàngal na ne kooku noonu si la noonu ba pare these people also daanaka youths yi nga xam ne ngi si on on the mm-hmm. am na li nga xam ne yow sax jànguloo ko même ak sax boo amee sa PhD so I think daal su mu bëggee jàppale agriculture mu dem mm-hmm. pharmacie the youth and the expert mm-hmm. we should all come together mm-hmm. ñu seet naka lañ wante su nekk ku nekk mu ngi bugg toog man farmer damay béy suma tool expert bi toog at the ministry xam nga <laughs> léegi moom time bi xoj nañu. Ah, da ngay wax ñi nga xamante ne ñooy seetaan kon koo xamante ne bëgg na laa jot jox leen seen details su ko defee ñoom ñu mun a. man am always open um, suma call suma téléphone number is 314 721. Mm-hmm. suma Gamcel number is 9139 449. ba suma email bi is alfo at gmail dot com. so always open. Mm-hmm. ku bëgg um, am suma products. or you want to come and visit the mu ne ma call si number yi si léegi tàggatoo la seetaan rek waaye laata ngeen a dem bu leen fàtte to give a thumbs up and then leave your comments biir kër gi rek ak Alpha Sarr mu tàggatoo. ñu joxaale di daje ba beneen of the show. yaa Aisha maa ngi lay gërëm. di waa di lay gërëm pare di say big thank to your management. Mr. Mm-hmm. Bachili and Mrs. Umi. Understand that this people are trying to promote youths yi nga xam ne they are doing something. it was man Mr. nekku ne tey la. Mm-hmm. Um, it was time ma door a start business. Mm-hmm. tamul maybe that time we are not seeing each other face value waaye daf ma daan encourage yoo tamit. and because he was also trying to see how best he can come mm-hmm. suit on what I'm doing and expose it to the international viewers. so maa um, ngi mi nga xam ne he's trying to push up. because ñun lañu nekk def aduna bi daf ko war a gis so this platform like this loolu daf muy jàppale kenn ki mun na nekk at somewhere as mm-hmm. di xam ñu what is going on mm-hmm. so loolu noonu maa si kontaan bu baax a baax te leen gën a gërëm te leen gën a pousse mm-hmm. pare you are also welcome ci we have lot of young entrepreneurs yi nga xam doing well and across the country uh-huh. léegi daal for them, moom mbaa mooy yeah <laughs> kon thank you so much for watching viewers bye bye